mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, di leen nuyu di am mbégte comme d'habitude di teewaat euh, ci 30 minutes chrono ci solution info TV di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu El Hadji Modou Diouf euh, Abdou Top Ablaye Diallo ak solution yëpp ñu ngi leen di nuyu Sanjogu son yi bu Assane ah, ak ñëpp daal. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ay sa maa jigéen tey nag euh, ñu ñëw li leen di defal euh, ci alxamis june tey ñu indi ko ci talaata ji lu def wax lu ay di jàmbat moo ko waral nag ndaxte démb xaju fi woon ndaxte danoo amoon une journée euh, mouvementée maanaam bëccëg boo xam ne liñ ci dund ñëpp xam nañ ko tey jii ñu fësee na ci waxtaan ak yéen bëccëgu démb bi nag. liñ ci mën a jàngat bari mooy jàmmi Ousmane Sonko mooy jàmmi réew mi waaye fitnaay Ousmane Sonko mooy fitnaay réew mi ndaxte bu nu waxee loolu daam fu ñu ko teg mooy un sénégalais doon un citoyen lambda boo xam ne dafa war wuy ji yoon woote ni na ma samay mbokk ak samay xarit ak ñi ma safoo gunge ndaxte nag ñi naan waratoo woon woote lu tax waratoo woote pour un procès public boo xam ne dañ ne yoon ayewul nga woote mboote mbooloo ñëw teew mambay ñaa sañ a ànd ak mbooloom sañ a dugg tribunal sañ génn sañ a dem def conférence de presse mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñu ne Ousmane Sonko léegi ñun dalay xalal yoon wi ngay jaar te doo ànd ak mbooloo doo ànd ak mbooloo waaye tamit bis boo eggee ba tribunal booy ñibbi da lay delloowaat waaye bu la delloowaatee waa bennoo waa yeewi askan wi bëgg a daje ak taskatu xabaar yi jamono ji waa benno yi doon def conférence de presse ñu ne waa yeewi askan wi ñoom Déthié Fall Khalifa Habib Sy ak ñeneen ak ñeneen yéen sañoo leen def conférence de presse loolu d'abord fa la tege lu tax ñu ne jàmmi Ousmane Sonko mooy jàmmi réew mi démb danoo gis ni marché yi ma xam man bari na ci ñoo xam ne bi ñu xëyee tijjiwuñu jaayuñu école yi bari na ci yoo xam ne danoo tëj transport bi na mu doon doxee doxewu ko bari na ci lépp loo xam ne dafa tëj ci réew mi kon tëj Ousmane Sonko mooy tëj Auchan mooy tëj Total mooy tëj marché yi. mooy tëj école yi maanaam tëj Ousmane Sonko mooy tëj réew mi tëj réew mi parce que bari nag ñoo xam ne mun ñoon dem mun ñu dikk kon jàmmal Ousmane Sonko est-ce que nekkul ni moo gën ci réew mi comme moom jàpp ko bëgg ko tëj wala bëgg ko fitnaal mooy fitna ci réew mi waaye tëj ko mooy tëj réew mi maanaam ñi yor donkaasi gi te jiite réew mi bu dee réew mi lañ bëgg waay waay nan jàmmal Ousmane Sonko jàmmal ko mooy nan kenn waxul warul dem yoon de. waaye bu xëyee ne damay dem tribunal waaye waaye na nga ko gunge encadré ko damay faral di wax naan ab nag bu jëm seeraas ñépp xam na ni bu demee dañ koy rey est-ce que nag bu jëm seeraas jar naa yàkkamti comme ñoo naan Ousmane Sonko ñoom buñ ko àttee dañu koy daan dañ koy condamné ñoom ñoo ko wax Ismaïla Madior Fall wax na ko ak Baye Oumar Gueye ci émission Sud FM démb dégg naa Moussa Bokar Thiam mi ñu dénk communication gouvernement bi mooy ministre de la communication moom sax ñi ko dénk communication ñoo ko tooñ ndaxte nag koo xam ne buy wax li muy wax doo ci xam dara ah ñu jël ko communication dénk communication bu ñu koy dénk da koy dénk am fasaaxa koo xam ne bu waxee nit ñi mën a dégg mais aussi am lu ñu ci mën a jàngee mu ne le 30 dañuy condamné Ousmane Sonko comme ñoom ñoo ko wax loolu nag li muy déggal mooy yoon. dañ koy dicté naan ko defal mu def bàyyil mu bàyyi parce que bu dee ay ministre sañ nañu toog ne dañuy condamné diw te atteeguñ ko te li ñu wax ci wàllu yoon mooy nit ki feeg buñ ko jàppee te atteeguñ ko présomption d'innocence maanaam dañuy am njot lu rafet ci moom ni kii deful dara ba yoon di ko daan mais ñi fare ci ñoom ñëpp génn nañ doon ay ministre de la république wax ni dañuy daan son ko loolu ab avocat mën na ko wax ndax dafa far waa ab ministre boo xam ne ci exécutif ba la bokk warul wax ci ni ñuy doxalee lii yoonu ku mim réew di Sénégal kon d'abord Ousmane Sonko condamné nañ ko te kenn atteegul ko mais kooku moo yey biy génn mu woote ne man mi kat damay génn te gunge leen ma ndaxte nag nit ku ne ni nga tollu noonu ngay wootee bis du tuuti borom lay tollool te nag bu rëy ci bis bu rëy lay dee waaye nga ni nag bi yoon wa nga war a jaar da koy xoolaat waaye buleen leen leeree ni Ousmane Sonko da koy condamné waaye waaye Ousmane Sonko na wër Ndakaaru ba jaar jam ñaajo mais jarul fitnaal jarul sonal jarul jël di dugal ci oto gendarmerie parce que da ko séq ak nawleem te nawleem boobu dugg na ci otoom di mambay ñaa dem dikk ñibbi këram def conférence de presse ñu ne Ousmane Sonko du am loolu kon Ousmane Sonko moom mi teg loolu moom moo yey ne wóoluwul justice moom moo yay ni day recruter juge bi parce que juge bi manduwul parce mbir mi doo xool rek ni Ousmane Sonko mbay ma mbay Niang la mais da ngay xool ñaari doxalin yi parce que bu ñuy wax justice dañ naan balance la maanaam dañuy peese ñaar gam-gam la leen xool est-ce que yam nan mais bii bu dee dafa jàng jëm fale mais fa mu jàng fala fare kon Ousmane Sonko la Abdoulaye Wade doon wax laa koy wax mooy lan un homme politique du taxaw tribunal ñu koy atte parce que ñi lay atte say noonu la ñu ñi lay atte duñ jël décision bu la arrangé surtout que code électoral bi ñu changé ci Sénégal ne kat de Ousmane Sonko ne kat de képp koo xam ne teg nan la daan wu weesu juróom-benn weer ak nangam ci xaalis kooku mënatoo dem élection mënoo woteel kenn te kenn mënu leen woteel te loolu xam lu koy dëggal mooy kaawu xalifa ak Karim du benn juge bu taxaw mu ne xalifa Sall waruta doon candidat du benn juge bu taxaw mu ne. Karim Wade warta doon candidat ji nga bi nu daanee Karim Wade ci mbiri traque des biens mal acquis maître Sidiki Kaba mu nekkoon ministre de la justice ji nga bi mu génnee xam lu mu wax dafa ne Karim daan nañ ko waaye nag ay droits civiques am perte ci dara lan moo indi tey ji Karim Wade mënatul doon candidat lan moo indi xalifa Khalifa dul doon candidat parce que ci code électoral bi lañu soppi li tax ñoom mënuñu doon candidat Ousmane Sonko nag yoon wi xalifa jaar Karim jaar fa ñu bëgg ko fa jaar la ñu ne na ko loolu mooy naa tëdd ñu rendi ma jaar ci sama kaw ñi naan procès bi entre ñaari doomu Sénégal la diggante Mame mbay ñaa ak Ousmane Sonko mais beneen bi ci topp mooy diggante ki um, Ousmane Sonko ak Adji Sarr lu yéeme am ci mooy dañ ne c'est un procès boo xam ne mbir yoon la mais dafa am ay conséquences politiques maanaam yow ci yoon la la teg di la atte yoon la lay atte mais dafa am ay conséquences politique maanaam daan yi nar a dal ci sa kaw bu dee ni teg nañ ko ci sa kaw dafa war a gàllankoor sa ëllëg ci wàllu politique kon Ousmane Sonko moo yay bañ ay nitam ñoo yay bañ léegi nag ñoom bu leen ko jaralee mooy nanu jàpp Ousmane Sonko nanu ko fitnaal nanu ko tëj ci kaso bi nanu ko toroxal bu leen ko jaralee pour taal réew mi réew maa ngoog man dama jàpp ni réew mi ñi ci ëpp intérêt mooy ñi nekk ci nguur gi man loolu laa gëm parce que ñoom ñoo fi fayeeku weer te du ñu jariñ réew mi dara ñoo fi yor oto yu baax yi fi yor lépp. lim naan borom baatu wurus warul xeex ak borom ba caxum nen loolu il faut ñoom ñu bàyyi ci xel kon ñi attiser le feu pour réew mi tàkk nanu xam ne bu réew mi tàkkee ñoom ñoo ciy gën a perte ndaxte ku amul dara du ñàkk dara waaye ki yor dara bu ñàkk di am yaay ëpp li ngay ñàkk kon ñi yor donkaasi gi nañ ci bàyyi xel beneen bi ci topp mooy Ousmane Sonko ñu ne kadde biiram da doon metti wala kan na mu doon noyee parce que lii agle lee parce que lacrymogène ak lu mën a xew ci Ousmane Sonko xam nga loolu lu tax ñu ciy tiit mooy en 2004 bi ni jàpp Idrissa Seck Idrissa Seck dañ koo jàpp mu taxaw mu ne maa ngi dem wuy ji waaye feebaruma jabetuma canceruma awma tension lu tax Idrissa Seck fii ku nu jàpp ngay dugg kaso rek baat boobu ngay wax kon dañuy njort ni ñoom buñ tegee ci loxoy seen i noon parce que fii adversité amatu fi wujje léegi gars yi ay noon lañu mën na leen a def loo xam ne mën nañ fa jóge feebar wala ñu am fa feebar boo xam ne du wér ba faw loolu nag moo tax ñoom ñii tey ñaari yoon a ngi Ousmane Sonko di tegu ci loxo yi takk der bi mu duggee ci tunnel bi ñu gazé ko ak bu démb bi ak li mu ci jëlee ak maître Ciré Clédor Ly ban ne dàq nañu àtte bi puus nañ ko. Ousmane Sonko ñu pare ñu ko yóbbu nañ ko ci kër docteur bi ñu ko yóbbee ci kër docteur ñu ne yaramam daa sutante mais loolu lu jër a jàngat la lu jër a bàyyi xel la parce que du guleet fii ci réew du Sénégal li ñu def Ousmane Sonko démb ñu def ko ab nit koo xam ne dañ koy atte ci wàllu yoon parce que nguur Sénégal man du nguurug Macky sàll gi lépp lu leen jiiñ wala ñu tuumaal leen ko man du ma leen ko weddi Hissène Habré ay exemple laa leen di jox dafa am lu toll ci juróom ñaar fukki at wala juróom-ñett fukki at soixante-dix ans quatre kaw màgget amul kàttan amul doole Hissène abre gis ngeen na mu woon ca tribunal bu gaa yi yoree photo na nan ma ko génneel mooy bi jëlee Hissène Habré teg ko ci ab jàgg yanu ko di ko forcer ci góor goo xam ne am na juróom-ñetti fukki at loolu fi la ñu fekk kon ñi mën a def loolu Hissène Habré mën a def leneen. fii la la gis Ibrahima Abu Khalil ñu naan ko bii Bibo bii Bibo Bourgi ay perfusion lañ ko jël teg ko teg ko ci jaag jaag laa la wax bi ñuy teg dee indi ko ci tribunal bi nga xam ne nguur gi ñooy ñàkk yërmande Karim Wade waxoon nañ fi ni tànkam dafa damm Assane Diouf dund na loolu ci prison tànkam damm keneen ak keneen ba ci imam Alioune Badara ndaw am na ñu naan la ko dal prison la ko dale te moom toog na wal fajri wax ko yu mel noon nag moo tax du ñu wóolu jël ab opposant di ko bàyyi ci loxo ñenn ñi benn seeni nekk egg na ci jabaru Karim Wade bi ñuy àttee mbiri traque des biens mal acquis mais jabaru Karim faatu ay takkaayu ooram ñu jal ko ci tribunal bi ak lu Karim Wade mën a def ci àddina soxnaam bu faatoo soxnaam yoonam nekkul ci li Karim Wade def mais ay takk jabaru Karim Wade mi ngi woon ca tribunal nguur gu mën loolu mën na leneen ci Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moo gën a dangereux Ibrahima Abou Khalil mii ñuy wane di Bourgi Ousmane Sonko moo gënoon a dangereux Hissène Habré moo gën a dangereux kii di euh, Karim Wade kon Ousmane ni ñu bañee kii di Sonko bañewuñ ko ñele Ousmane Sonko lañ gën a ragal léegi nag coow li mooy jël Ousmane Sonko di ko bàyyi ci loxoy ay noonam. gars yi Ousmane Sonko war na war nañ xoolaat de ñaari yoon a ngi mii am amoon na le 16 amaat na démb jël Ousmane Sonko rek yanu yóbbu daa xaw a yomb loolu gars yi nag nee nañ Ousmane Sonko day victimisé wu pour politiquement nit ñi yërëm ko ah ah man doyuma de. la fait à chaque fois gars yi ne ko coppet jël rek dugal ci ab daamar dem maa ngi déggul benn tappalekat boo xam ne ci ñoom la bokk naan Ousmane Sonko waru woon ñibbi këram mooy bay tappet yooyu nekk cogère boo yooyu xam ne lu mën a xew ci réew mi ñu naan noo diw du génn diw du génn te bu diw génnee ñoom kenn du leen gis xam na ñoon ñooy dugal président Macky Sall ci guta noo diw du génn diw bu génnee nan ko teg lii ñun waa cogère Medina Bamba Fall jug nii kërëb kërëb mais li lay wan ne ay tapet lañu bu réew mi yëngoo même bu journaliste yi jëlee téléphone di leen woo pour enregistrer leen ci rajo yi wala télé yi duñ wuy parce que dañuy bañ ku leen identifier kon ñooñu di dugal président Macky Sall ci lii lii day dooleel Ousmane Sonko mais da koy may doole mais Ousmane Sonko aussi tey na maytu na maytu tamit parce que tamit coppet rek dugal ci ab oto fourgonnette ñiy pomp di gaze ki dem bay gaze hôpital ku dem ba euh, un dem ba di ko gazé di gazé ab tribunal nit ñi nekk ak condition yi nekkee nga mën fa taal gaz nguur goo xam ne tey jii ñi ngi wax ci xibaar ne am na ay nervi yu leen di liggéeyal ñu gis ko ci ay vidéo ca Médina ñu yor ay jaasi takk der yi war leen a arrêté arrêté wul leen nguur googu képp ku leen wóolu wala ngay jël sa bopp di leen ko dénk juum nga beneen bi ci topp mooy li xew ci demuk Ousmane Sonko beeg dikk bi loolu lu jar a wax la kon maa ngi dànkoof waa Pastef fii maa ngi koy wax di waxaat nit du jébbal boppam ay noonam ñu koy traité Ousmane Sonko bu leen leeree ni dafa war di wuy ji te ñoom nee na bu demee dañ koy daan dañ koy condamné ngalawaay nan ko bàyyi mu dem na dem ba jam ñaajo na dem ba cees na wiiri wiiri waaye comme wiir wiire ndaari rek lay eggee waaye waaye nan ko fa xaar lan moo jar fitna gi yépp ñuy teg ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko njariñ loo fekke de njariñ loo fekke kon sécurité Ousmane Sonko ak kaaraange usmaan Ousmane Sonko lu war a sàmm ci mim réew di Sénégal la parce que xamul lu tax may wax loolu ñun dañ fi gis ay exemple gis nañ fii kaaw Omar Blondin Diop ci jamonoy Senghor le grand Maodo Mamadou Dia jàpp nañ ko tëj nañ ko génn na doon silmaxa ay exemple yu bari ci Afrique ci ñoo xam ne tey jii xeetu Ousmane Sonko loon woon fi ñu mujj ci ñàkk wér-gi-yaram ci ñu mujj ci fu bari kon protéger Ousmane Sonko sàmm ko aar ko baax na parce que nag bu dee ni Ousmane Sonko mooy seen or or de doo dugg ci kër gis ko mi tamambalu or doo doo dugg ci kër gis ko mi tamam or dañ koy nëbb bu dee Ousmane Sonko jaral ne leen li mu leen jaral waratul doon koo xam ne tey jii danañ ko coppe dugal ci oto rek jël yóbbu bu waree dem tribunal nan ko encadré gunge ko ba mu egg këram lépp ci jàmm ak salaam ñu atte ko bu dee atte bi jàll na mu def appel bu defee appel yoon jaar fi mu war a jaar ba ñu jël Ousmane Sonko bu amee ndam baax na bu amul ndam ñu xool yan pexe la ñuy def mais nag jébbal ko takk der yi rek li xew di xew parce que nag mbiri nervi yi pourquoi ñu ragal ko fii la Macky Sall jëm Matam ñu gis ca yoon wa ñu ne ay nervi ñu ngay duma waa Fuuta kon nguur googu tey jii waroon assurer la sécurité des bien et des personnes maanaam yoon dafa ne nit ñi ci seen bopp seen kaaraange nguur gee ko yor waaye te sunu alal ñun nguur gi moo ñu ki ñu ko sàmmal nguur googu nag bu demee ba ñun mënatuñ sàmm yaa problème bu demee ba mun a boyal ay nervi bu demee ban na ay nervi ñi ngi def lu leen neex te takk der yi dal leen la ragal la arrêté loolu musiba la bu dee loolu am na loolu musiba la te loolu lu war jug la parce que nag takk der yi ñoom dal leen la ñu sàmm suñu kaaraange mais képp ku ñu gis mu nekk menace ci suñu kaaraange da laa a teg loxo parce que Guy Marius ci xibaar yi mu jëg génn nee na cent soixante jeunes arrêté na leen démb cent soixante jeunes arrêté na leen pour diverses raison pour divers motifs na yoon def liggéeyam waaye noonu ñu arrêté manifestant yu Sonko yi mais loolu lan war a arrêté ñu ñu gis ci vidéo ci YouTube bi ñu yor ay jaasi ñi ne ay mbër lañ ñi leen ay lii ñu ne ab responsable Benno Bokk Yaakaar bu dëkk Medina mooy ki leen gemb bi leen dàqee sax nee na ca mairie ba la dugg waa yoon du def liggéeyam ñu xool nervi yooyu yoroon jaas yi yor ay arme blanche ñooñu ku leen yónni kan mooy commanditaire bi léegi daal ñoom bu dee sa ñoom nga far sa nga yor jaas yi nga dóor ku ne xool li ñu def dàmbooj li ñu def dàmbooj a gën a ñaaw. daa noo non jàmb day manipuler sociaux man mi xam daam xam naa ne du manipuler daam nekkul ci ay tappale ginnaaw émission bu mu def Futur Média TFM génn ñu dar ko jëme ko Radisson Pape Matar Diallo ak waa ji nu mu tudd Mame Birame Wathie dem fi manifestation ñu leen di tëkku képp ku nu tëkkuwul ci ay ngànnaay ñu ngi lay woo téléphone di la saaga ak di di ko teg ci sa kaw parce que ñi koy def fi leen fi mën menacé ni dañuy taal Walfadjri nga ko def ñëpp xam kan la ba tey ji kenn tegu ko loxo fii la Guy Marius Sagna dem Malicounda ñu agressé ko mu porte plainte plainte mu mujjul fenn Sonko ñaata plainte la dugal ci réew mi justice bi waxu ci léegi képp ku bokk APR am nga sécurité képp ku bokk bennoo am nga sécurité lu la neex wax lu la neex def bu la neex nga def appel au meurtre bu la neex nga ni appel na yow wooteel lu la neex Macky nga faral rek yow da ngay mucc mais bu dee ni danoo yaakaar ni ànd ak Macky sàll sañ nañ teg lu ne ci sa kaw anapam Pam lu dul def liggéeyam rek ñu yëkkat ay daan teg ko ko ci jamono jooju maa ngi gis ay chroniqueurs yi naafeq nekk ci ay tele ay màggetu journaliste yoo xam ne tey jii ñoom danoo waroon di wane la bon exemple seen i rakk ak seen i doom di xool ci ñoom dégg naa ci kenn démb. xaw ma nan jonn ci benn tele moom fu mu waxee nan non Sonko waru woon woo booy Sonko fii kun fi woo say mbokk jóg moom buñ ko woowoon day woow journaliste ne gunge leen ma ab sëriñ fii ci réew mi kun ci woowoon nga woo say taalibe ne gunge leen ma Ousmane Sonko ay militant am la yaakaar ay militant la yaakaar bii dem ci yoon bi du du woote ni Macky Sall woote woon Idrissa Seck woote woon ko Ablaye Wade nan ko woote Karim Wade woote ko xalifa woote ko ñu ne Ousmane Sonko du ko woote du fi conférence de presse ay journalistes yi naafeq parce que stratégie bi ñu teg mooy dañuy fexe ba benn Pam Ndiaye du waxati ñu manipuler ay journalistes punkalu journaliste naafeq bu dara xewee ñu teg leen ci plateau yi lañ jàngoon ak la ñu xamoon yépp ñu sànni ko fële nekk ay hypocrite jël seen leer jëndee ko lëndëm ci alal joo xam du leen jariñ dara booy revue de mel ni kuy def communication doo def agencement bu baax te pourtant mën na revue de presse mais danoo dugg ci tappale ba yàq revue de presse alors que revue ku ne xam na nu koy defee agencel attaquel defal say transition def suite bu baax te libre mais tey jii képp koo bëgg yàq yow da nga jàpp ni ci revue de presse nga ko war a yàqee di parparloo ba réew mi yëpp xam ko lu jarta wax nga génnee teg ñaata journaux ñoo judd ci réew mi tey jii ay journaux yoo xam ne weer wi lañ juddu kenn xamul ku leen moom bu ñu xëyee bind lu leen neex woo seen revueur de presse ñu leen koy revuer lépp rek pour contre Ousmane Sonko lépp rek pour xeex opposition bi lépp rek pour jaay seen bopp. ci alal joo xam ne ji nga un bien mal i na profite jamais ji nga ji nga alal uti na rafet ji nga li ngay fen ba am ko billaahi boo waxoon dëgg jot ndax sa wërsëg la kenn mënu ci dara parce que nag ñi fi wax dëgg di def seen liggéey normalement kenn gënu leen a tedd de <coughs> xoolal jour kenn gënu leen a tedd de ñi fi nekk ñu naan dañuy tàngale ak ànd ñoo nguur gi est-ce que dañuy xëy di yalwaan ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi solu am loo xam ne ñàkkum jom kasal du dus kon affaire yi nañ ko rafetal teg ko ci yoon mais aussi wax dëgg gi boo ñu ne Ousmane Sonko war woon génn woote moom moo poussé jeunes yi ci lii ak li lee day tëdd ñu rendi ko mu faatu kenn àndul ci ñu yàq kenn àndul ci ñu tas kenn àndul ci ñu toj alalu jàmbur kaar yi ñuy toj ñoo ko moom Auchan yi ay doomu Sénégal ñu ngi fay liggéey total keneen ak keneen. loolu kenn àndu ci parce que man bu ñu yàqul sama alal man du mu ci ànd kon il mais nag mënuñu nangu ab gouvernement taxaw def ab gouvernement de combat et d'attaque ñu keroog waxoon naa ko ñu dem ba ñu naan combat ak d'attaque ñoom Pape Malick nduur ak ñoom Lat Diop Lat Diop war na wax Lat Diop lan lay wax Ahmed Aïdara ko gañe Géejawaay ñu boole kaa ak Khadija Mahécor boo xam ne mat na ko doom mu gañe ko kooku Ousmane Sonko day nawleem kooku bu mënoon dara ci géejawaay dinañ ko gañe Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse quel honte pour la jeunesse jeunesse su réew mi ñu waxante dëgg ñun danoo jàppoon ni boo nekk ministre de la jeunesse dangay ñëw di former jeunes yi mais aussi di leen yee mais aussi ubbi leen ay yoon yoo xam ne dinañ ci mën a jaar pour tekki mais aussi li jëm ci wàllu citoyenneté jeunes yi gën a bëgg seen réew gën a doon ay patriotes ñu lay xar foofu. mais nga ñëw yow yaay pousser jeunes yi ci riposte ci riposte ñu ne lan ñu ne non dañuy créer brigade de riposte yow gouvernement combat ak attaque nga mujjee ci brigade de riposte ki doon combat ak di attaqué bu demee bay riposte amatul doole waxoon naa krog da nga ni nax Macky Sall mënoo leen ko indil tous dimbali leen Macky Sall li xew ci réew mi yëpp est-ce que Macky Sall comprendre na. da lay pousser lu ne nga dugg ci parce que li ñu defal Sonko ak li xew démb xew la 16 xew la 2 mais loolu day avantage Sonko adduna bi yëpp ñu ngi ciy wax communauté internationale ñu ngi ciy wax mais loolu kan lay wàññi Macky Sall la Sonko bu ko neexee na feebar feebarlu na yeew tànkam xolal takk boppam xolal jël perfusion def ci yaramam mais ñoo ko may occasion boobu na tëdd ut certificat médical am comme ñoom ay tuule lañu. ba yenn saa Ousmane Sonko lu mu leen lalal ñu daanuti démb wax naa ko benn waay damay ragal ñu naan usmaan Sonko prison prison prison prison prison ba Ousmane Sonko dugg palais bi te duñ ko yëg ndaxte bis jéego bu ñu teg rek ñu ngi jege élection yi te liñ bëggoon ci usmaan Sonko mënul ne benn góor nag wax na mu wax du rëy benn góor ne ma géey ma ne ma ne waa ji ndey ma liggéey de mun ma neexul toroxal de kilifa ma ko wax kilifa gu xam dara nag moo ma ko wax mun ma ndeyama liggéey de neexul toroxal de mun ma njombar la de mun ma njombar mën nga ñu ko rëbb de waaye boo demee ba ko jàpp rek day tëb dalaat feneen te waa ji ngi tëb rek parce que mars 2021 la nga ko bëggoon a tëj ba tey ji mun ñu ko tëj kaso mars 2021 diggante bi dem na ci local duma leen dem na ci législative duma leen len na ko desee mooy présidentiel ci bu ko yàlla dogalee kenn mënu ci dara mais malheureusement ñun sunu réew li gars yi war a taxaw dëgg-dëgg taxawun ci mooy fulla gi ak fayda gi mais kaaraange askan wi boo déggee ñu naa la force reste à la loi force reste à baax na mais force reste à la foi tamit baax na maanaam foi nit day am foi mais man dama yaakaar ni gars yi desee am diine danoo desee am ngor danoo desee am yenn moo tax ñu dugg parce daa am loo xam nit bu amee diine am ngor da koy jombale boppam. da koy jombale boppam pour plusieurs raison parce que am na ci loo xam ne gor du nga ko jox lépp mu jël lépp bu dee nguur gi dafa jeex kenn mënul teemu jeex dañuy ñaaw ci xare bi rek te Macky Sall ñi ko topp ñoom est-ce que ñoom ñëpp ko bëgg parce que lii ñu koy dugal yëpp ak yi xew yii yëpp depuis que nag Amadou Ba jiite gouvernement bi war nañu poser ay question qu'est-ce qui parce que li ñu gisee nguur gi taxawee ko nii ci Ousmane ko mais plus que ñu koy fitnaal plus que nit ñi di ko gën a yërëm plus que nit ñi di ko gën a bëgg loolu il faut ñu bàyyi ci xel lu amoon du amaat a démb li xew li xew lan mooy xewaat la 30 xamuñu yàlla na jàmm xew réew mi doon fi Auchan doon fi Total moo gën doon fi nit a démb bi booy di rajaxe gars yi biens yi sénégalais yi am di magasin sénégalais yi sénégalais yi xam ne ñoom la Macky sàll yaakaar pour ñu woteel ko sénégalais yi xam ne ñoom la Macky Sall jàpp ni li mu doon ñoo ko def sénégalais yi xam ne Macky da leen war a liggéeyal di nga démb bi manifestation yi amee lu yéeme laay seetlu seetlu la nag bu ma def mooy total Auchan la gars yi di surveiller léegi yeneen sénégalais yi am seen alal ci réew mi nag ah <laughs> kon léegi daal protéger France. moo war a mu mu ngay gën a sentir ni ñu ngi koy protéger sénégalais yi man anuma ku ci ku yàq mais bu ndee bay protéger nan protéger bien wu sénégalais yi protéger Auchan protéger mais léegi dañuy fexe ba Auchan am sécurité fexe ba Total am sécurité fexe ba leneen ak leneen am sécurité léegi les sénégalais ci situation boobu ñi nekk tekki lu waroon a gën a di euh, yëkkati nguur gi maa ngi dégg ministre du commerce mu génn di tontu Ousmane Sonko naan réew mi dinañ ko jaarale yoon force reste à la loi mooy seen wax jooju way jooju xam ne way wu amul daaneel la dañ cee tàmbalee di sonn mais na wax ci suukar si amul ci réew mi Sénégal amul suukar man damaa bëgg ataaya waaye dem ci guddi naanum ataaya fu mu koy jëlee keneen ak keneen gisoo suukar ci réew mi le ministre du commerce waroon na dajeek taskatu xabaar yi wax ak commercant yi wax leen ni suukar si lii moo ko téye lii lay def ba génnee ko. ñu créer si ñu ut ci solution parce que ñu ngi jëm koor bu buñ koy wax mooy la demande day supérieure ak offre bi soxla yi day bari la moom la tubaab bi naan le mois de la consommation nguur gi war a sëgg ci loolu xool nan la ñuy approvisionner sénégalais yi ba seen dund mat ci lekk ak naan ñu koor ci jàmm ñu ñuy programmeel ay procession ko ci koor technique koor gi nit ñi buñ xiifee duñ jóg ça veut dire non c'est malheureux ce pays man j'ai l'impression ci suñu noonu ñoo ñu jiite xamuñu lan mooy priorité lan mooy soxlaay askan wi di nga Macky Sall bu joxoon jeunes yi liggéey ñëpp am liggéey kër yi neex ñu lekk ba suur di naan bu màndi gëm naa bu Sonko wootee ñu bari du nga toog justice bi tegu ci yoon na teg réew mi ci yoon rek di nga bis bu ko tegee ci yoon wallahi asim dina xam ne sénégalais ay nit yu yeewu lan duñu kuy Sonko di manipuler wala sonk moo leen gënal seen bopp wala dara dara mais injustice boo gisee ñu koy xeex mooy injustice boo ko bàyyee mu jàll bu dalee ci ma Masamba nga ba nga nga ni déet dal ci ma Mademba nga ni déet ko injustice boobu mën na law ba dal ci sa kaw may fàddali nag ab kàddu foofu lay tëjee bu Sëriñ Lamine mu ne dans un cent fois foi ni loi la demeure des hommes dignes c'est la prison mu ne dëkk boo xam ne ngëm-ngëm dafa jeex amatul loi gor yi dëgg seen dëkkuwaay mooy prison mbokk yi kon di bàyyi xel ñi ci prison bi di ñaanal Pape Ndiaye suñu borom génnee ko ci jàmm euh, mu laaj taxawaay tamit kon euh, topp maa ngi lay gërëm di gërëm Modou di gërëm Ablaye di gërëm euh, solution info TV yëpp ñi ñuy àndal ci liggéey bi di jégalu bu baax nag bu dee nii nag danoo juum wala danoo wax kàddu yoo xam ne waruñu koon wax ñi ngi jégalu nit la ak njuumte yenn saa yi aussi yaram yu xaw a tàng mais ñi ngi jégalu di ñaanal ñëpp jàmm ba yoon incha allah.